asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki julit yi bokki taalibe yi yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ak ñun di ñu seetaan noo ngi amaat mbégte di sant sunu borom subhanahu wa taala di julliwaat ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di feddaliwaat sunu yaakaar Cheikhuna Ahmadul Xadim di ñaanal jëwriñu yoon wi di as cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom gën ko fee yàggal te dolli ak wéram waaye ñaanal jëwriñu kër cheikh Abdoul Ahad Mbacké sëriñ Sidi mu cheikh Abdoul Ahad Mbacké na ko sunu borom may fan wu gudd lool waa ànd ak wér yaram waaye nag di toog ci atub kenn ci taalibe sëriñ Touba yi di kenn ci taalibe cheikh Abdoul Ahad di taalibe cheikh Salihu di rak ci sëriñ Sidi di taalibeem di sëriñ Amsatu Mbàkke mu Cheikh Abdoul Ahad ñu gën ko miin ci Amsatul Xadim mu togaat ci jataay bii ngir jotaat ndigal ci kilifaam ndigal li mu baaxoo jot at mu jot te muy ndigal loo xam ne ay xéewal yu bàyyi ko ci sëriñ Touba rek la jëm si ci moom te mu yéete ko yéene ko julit yëpp di ko dox na ko sëriñam ba daan waxe na ko duma fekk lu yàlla yaatal ma di ko xatal te loolu moo jëm ci bàdd li ji tooli daaru salaam bokki barga liggéey ba nag noppi na ñu war caa dem le 9 incha allahu rabbi décembre loolu moo tax ak ñu toogaat ak am Amsatu mu fas yéene yëkkati ay kàddu soññiwaat ñu ci soññiwaat ci taalibe yi waaye soññiwaat ci ay soppeem ak ay xaritam ngir ñu waajal liggéey boobu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi maa ngi nuyu bokk jullit yëpp di am mbégte mu rëy nag ak bànneex ci toog fii ngir jotli kàddu yu gàtt yu néew yu jëm ci liggéey boo xam ne sunu kilifa daf na koo sant muy sëriñ Sidi Moussa Abdou Lahad muy liggéey bàcc ak jëri ak roñ ngooñ ak roñ gerte ñu war koo def le 9 décembre ca Darou Salaam bokki barga ma koy yëgal kuy samab xarit kuy sama mbokk kuy sama walare di ko yëgal nag taalibe sëriñ Tuubaa yëpp yëpp bayu ma genn kër ndax liggéey sëriñ Tuubaa day njariñul tey ak njariñu ëllëg te ma yéene ko ñëpp moo tax ma ko yégal ñëpp di jiital ci yëgle bi nag ñi ma bokkal sëriñ Abdou Lahad ñi nga xam ne maay seen kilifa ñooñu sañ naa leen ko sañ naa leen a woo waaye ñi nga xam ne tam ñoo may def sañ naa leen ko yëgal ku mel ni sëñ Moussa Abdou Lahad ak sëñ Cheikhouna sàkku ci ñoom ñaan di ko yëgal nag képp koo xam ni sëriñ bi ñor na la ndigal ñor na la ndax ndigal mooy li am njariñ sëñ bi laa daana wax ni ndigal dafa tàng ni kaani weex ni xorom waaye nag soo ko roñoo day mujj sedd ni galaas neexe ni lem may ñaan nag képp ku fa teew lépp lu ndigal di maye fekk la fa nga ne yàgg nañ koo def maîtrise nañ ko waaye nag day njëriñ loo xam ni dama bëgg ñu jëriñoo ko ñun ñëpp moo tax képp kuy xarit képp kuy wëlale képp kuy soppe képp koo xam ne defaru sëñ Tuubaa ñor la te nga bëgg a defaru ña nga la cay woo képp koo xam ne itam ñëw nga ca ñu ngi ñaan ci barke Seexul Xadim yàlla faj sa ajo ak ju mën a doon ajo yi biir aajo yu biti bu dee ak wéradi yàlla na ko saa saafara bu dee aajo yi télé wala ajo yi ñàkk yàlla ko saa borom saafara bis bi nag gaaw ajjuma lay dajal la ñuy départ jëm Darou Salaam bokki warga fas yéene def na ko sëñ bëggee bàcc ak jëri ak bàcc ak jëri ak roñ gooñ ak roñ gerte ñu ngi koy yëgal nag bokki kajoor yi nga xam ni ñoo tax ñu di jox ab liggéey ndax mooy baas ba te sëñ ab lakkan di jawriñ ja damay bañee tudd lim waaye maa ngi ko yëgal daal képp koo xam ni sëñ Tuubaa ñor na la képp koo xam ne bëgg ngaa defaru képp koo xam ne bëgg ngaa jëriñ képp koo xam ne bëgg ngaa yokk looy def yàlla na yàlla na nga ci dajeeg loolu ci barke Seexu Xaadim wasalaamaaleykum wa jërëjëf mbokk yi ñoo jot dégg kàddu yi bàyyi ko ci sëriñ Amsatul Xaadim ni mu ko waxee ne ku lim doo matal te xaale na nga bàyyi koo xamante ne bii moo waroon a jiitu waaye ku ne xam ne ne woote bi ni mu ko daan defee njabootu Cheikh Mahamadul Fadal kenn daawu leen ci jiitu njabootu Cheikh Abdoul Xaadir Mbàkke kenn daawu leen ci jiitu waaye nag njabootuk Serigne Touba gi rawatina ñi nga xam ne seen jur ya ñoog Serigne Touba ñoo àndoon waaye biñ gisee Cheikh Abdoul Ahad ñu fab seen doom yu baax ya andi ko fi te loolu mooy doom yi seex yi bàyyiwut benn seex boo xamante ne bii jaar nga ci daara Serigne Abdoul Ahad te tey jii nga nekk seen kër ak koo mën a doon ak ku mën a doon sa muntu ci kër gi rek sëñ laxat Ahad liggéey lu sëñ Abdoul Ahad lañ woo kon ma la cee woo de ci soñ ñëpp waaye nag ku ne xam ne Cheikh Abdoul Ahad noonu na ku liggéeyal Serigne Touba murit yee la war fay te kenn nattab liwut ne moom sëriñ Abdou Lahad liggéeyal na sëriñ Touba mon képp koo xam ne jàpp nga ne borub sëriñ Touba boobu war nga caa fay rek ma nga lay woo Daaru Salaam bokki barga di ñaan nag képp ko fa teew yaari way yi sëriñ Touba wayoon ku koy liggéeyal yàlla na lal ci sa kaw muy waq di hawaaiji lasina daamoo fii xidmati wa hablahum maaraamoo dellu waxaat ne inna lasina saarahoo fii xidmati falahumu diyaari wasal jannati jaayante ga Cheikh Abdou woon ak sëriñ Touba sëriñ Touba moo njëkk wax ne adxaltu nafsi wa jamiha ahli fii bakkanam ak alalam ak njabootam tabbal ko ci biir boosub rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Abdoul Ahad ko ci moom ne na bakkanam ak bakkanu njabootam ak i taalibeem tabbal ko ci biir jibéy Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul si am sut nee na fa teew yàlla nga bokk ci ñaari ndénkaan yooyu ci barkeb Cheikh Abdoul Ahad docteur jàpp ci liggéey bi ku mel ne Alaaji Mbay Touré sëriñ am sa toon koy sant bu baax a baax ci li lépp waaye di ko soññuwaat ci liggéey bi ku mel ne monsieur le maire Ka daana ci jàpp bu baax a baax ak ñeneen ñi nga xam ne daanañ joxe seeni oto ku mel ne alaaji Ousmane Samb mu alaaji Mbàkke Samb nekk fii ci 28 ak ñeneen ñi nga xam ne daanañ ci jàpp di joxe seen oto moo xam muy oto bu mën a roñ ngooñ wala muy oto bu mën a yóbbu doomu aadama ñoom ñëpp sëriñ Amsatu nee na ma nga leen cey soññ di ñaan nag ci ñi nga xam ne ñoo yor wàllu yoon wi di takk der yi diggante gendarmerie ak police police ci biir dëkk bi lay doon gendarmerie ci àll bi lay doon waaye nee na mi ngi sàkku ci ñoom ñëpp ñu yombalal nit ñi xam ne dañu liggéey li yàlla waaye wuti wuñ bénéfice bu àdduna bañ mën a dem dellusiwaat ci jàmm rawatina douane yi ak ñoo ñi nga xam ne ñoo ci aju ñëpp sëriñ baa ngi leen koy yëgal di ci ñaa sàkku seen i ndimbal di ko jaarale ci seen i kilifa jaarale ne bi taalibeb ba noppi di ministre de l'intérieur Antoine Diome sëriñ bi nee na mi ngi koy woo ci liggéey bi waaye dem ci jàmm dellusiwaat ci jàmm cañ bokk Serigne Saliou moo tax ma di ko ko yëgal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.